suma tànkati lenn mooy mooy waaw இருக்கிறது jàdduram si fóot Boy Niang Ama Baldé ci soxorut suñu doom ñi daan dépp Jacob Ndiaga Diop bu nu bàyyee Pikine rek Pikine boo ko doy boo ko bàyyi bu defee ne nag xeeb ay ay sama grand nga ak sama loolu xeebuñu ko doy mu jël saa kees saay saay ba soo gisee forme bi jaarul yoon la neexee ba ma rombee nee ma chiffre ah de boo ma seen tey boo kontaanul woo ma ba ma nga di ma Abdou Aziz ma ne naam nga di ma doonoon chiffre. fekkal boo ko xoolee suuf la commencé ba ci kaw lépp da koo defar bu baax xale bi nga xam moo daan moom lay kontaagal. seen sàmm xale bi dama ko ma suba. ba ginnaaw suba. fay ci ay nag ay bëy sànni géej waaye mënu ma la ko wax parcelle. kan mooy Eumeu Sène. bu ma la koy wax naan la champion. mais ci wàllu roi des arènes nga bëgg a wax ki am jom ba doon roi des arènes kenn la muy Eumeu Sène. jëmba ba jëmba góor jëmba farma ci benn gis nga bañ na yaay ma sax nga may bàyyam waaye ci xale bi muy dajal. xale may fonde rek mu naan. jël ko may mu naan lan la daj si waat. leen ko présenté lii day firndeel tey waaw mais naa la ci loone maa ngi nii sant yàlla baax a baax. yaa ngi cool waaw sant yàlla nam naa la ah nam naa la de. maa raw jeex na tey. moo tax danga may daw. star eh, man man man mooy loolu man taalibe laa rek sa waay mais ñu del si Malaw tey 200 euh, pour cent Pikine firnde wu ci diggante Eumeu Sène ak Pokola organisation open press bi na loolu. loolu. dañuy nuyu ñëpp di nuyu waa Sénégal di ñaan senegal yàlla na fi jàmm sax di ñaanal ñëpp jàmm naam di nga yéene ñëpp jàmm mais ñëpp am ko. di ñaanal ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi may suivre à travers samay plateforme samay snap Malaw Pikine Instagram bi TikTok bi maa ngi nuyu ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay lii am tey biir Pikine maanaam li yàgg na fi quoi maanaam ñi comprendre ñoo comprendre la mais Pikine mus ñoo mus ñoo xaajal yàlla xam na loolu mais initiative bi dafa nekk initiative boo xamante ne initiative bu rafet Pokola étoile montane bi Pikine mi ngi mel ni ñoom Pokola ay Jacob Baldé ay Prince maanaam boo yooyu ay étoile montane seen grand yi war na leen mën a wan benn image bu rafet boo xamante ne bu ñoom bu ñu tollee si niveau bi seen grand yi toll maanaam ñu ñu ñu xaw am benn cohésion seen biir quoi mais li li Eumeu Sène nii lii dafa rafet quoi di leen ñaanal lii yàlla gën a sax ndax lamb ñom amnañ ci liñ ci am ba paré mo le bi may ak boña mënul jënd moto tay dem na ba légui tabax kërëm biir la gros tabax fi kër yóbbu yaa màq lool sant yalla lool taxu ñu and ak mom mais lu xaas du dara mo tax sama sar bi do do téla gis ñu am problème ak yeen mbeuri parce que xaar du leen ci dara dañ doon and ak ñom te yalla rek tax xaar ñu won ni bi ñuy and ak ñom muy sol ay caraf 600 xamu ñu won ni boña dina mëna jënd auto 50 millions lool dañ ci sant yàlla baax baax par rapport ak ñun nak ñun ci liñ nek ay doomu Pikine chaque jour dañuy def loo xamante ne day yëkkat suñu drapeau di somay samay partenaire Orange Sonatel di nuyu waa Kirène di nuyu waa Sunubet ah ben way sponsor daa commencé bëri sax ah, mais ñu gis euh, Boy Niang li mu def bërki démb mu naaj dem kër ñoom ama ñu booloo waat toog waxtaan ko xale yi gisee soo ñu waaw moom loolu mooy image am na ci mbër yi maanaam ñi nga xamante ne xamuñu man xamna ci mbeuri lo xamanteni ni ñi ñii seetaan xamuñu ko xamna ñu ngi déggante ñi ngi wootante amuñu problème mais ñun suñu biir manam ñi nga xamanteni on est derrière les les waxkat yi. waaw te man bokuma ci waxkat yi manam ñi nga xamanteni ñom la lamb ci dundal ci wax ñooñu ñooy salteel la parce que buñu waxul duñ am lu lek ba way man duma waxat man contrat yi ma yore mën na tër sama biir nek ñu may fay sax sama chaque weer dañ may fay ma ngi sante yalla bu baaxa baax mo do ma gis ma wax. duma wax lu ñaaw ci làmb wax luy féewale ay mbër su ma mënee jubal su ma mënee def loo xamante ne nii day gën a yokk cohésion Ama Boy Niang ak mbëru Pikine yi ay Eumeu Sène ñu gën a am jàmm loolu dama koy def teelu man li ma war am dama koy am ñi am problème mooy ñi nekk ci ginnaaw mbër yi ñi nga xamante ne nii foog ñu wax pour am lu ñu lekk ñi nga xamante ne nii foog gars wax loo leen wala promoteurs yi kii la ñu wax indi ay cohésion pour gën a taal seen làmb mais mbër yi amuñu problème. mais il est temps nag kon ñooñu est ce que waruñoo noppi ndax jàpp waaw xam naa buñ gisee lii dinañ gën dinañ noppi nag xam ne ñoom nag li ñuy liggéey amul njëriñ buñ gisee ni Amazone dem na ëpp presse woo am woo Pokola ñoom ñaar ñu bokk te boo majul bu commencé boo ñaar dugg si ama bu ko fekkoon loolu day gën a garaaw xam naa mbër yi amuñu problème maanaam ñun ñu si nekk nii nga xamante ne nii ñi ci ginnaaw di xaar di yaakaar mbër yi ñi nga xamante ne dañuy yaakaar mbër ba bu mbëri amee contrat bu leen mayul xaaj ñaan non la moo tax mayuñu ma ñoo ñoom problème mais ku wax ku wax maa la wax Boy Niang mais ku wax maa la wax Wally Seck gis nañ barki démb VSD bi vendredi samedi ak anniversaire bi coow li bari na site internet bi toj na gis nga loolu loolu mooy sama identité Boy Niang ñëpp xam nañ ma ak moom mariage in may sa bigé may kooku kenn ñëpp xam nañ ma ak moom sama xarit la sama grand la ma koy ñaanal képp kuy téye micro di way yàlla boo ko raw noonu laa mos a mel constance boobu lay doxee boo ñaar sama diggante ak moom wurante garab la munoo xam fi ñu jam teewul nag ma dama am samay contrat bopp yoo xamante ne nii dama koy liggéey si li ma nekk ci sama image li mu li mu ne feesu ndax trois jours fan si jóge li ñëw troisième man euh, man genre nit ñooy du ma leen déglu nag waaw yàlla xam na lool bilaay parce que man bu ma yàlla mayee li ma may tey am na yenn yenn mandarga yoo xamante ne su ma ko amee foo mën a dem dem fa ma mën a mënal sama bopp ay nit ma jox xaalis di ma wax loo may wax ci koo xamante ni yow tey boo gëmoon sa bopp mën ngaa am lu ne ndax yor nga loo xamante ne nii àdduna moom la ñuy wër waaw. moo tax may la jaar ñooñu du ma sax wax ak ñoom waali ku ko xam-xam ni il est le meilleur le centre du peuple maanaam mooy koo xamante ni nii c'est l'incontournable instant bi Youssou Ndour ay ñoom Youssou Ndour ñoom seen wàllu wéy na mais ci génération waali il est l'étoile de la musique sénégalaise moo tax may la genre yooyu du ma waxanteeg ñoom dañu tontu nag parce que nekkuma ci détail yooyu tey ma may loo xamante ne ni tey lu ma foo bëgg a dem dem fa lu ma bëgg a lijjanti lijjanti ko xam nga di topp ci ginnaaw ñoo xamante ni yow sa image moo gën seen image ñu lay jox xaalis ngay wax yoo xamante ne nii amul sens. mais Ndiaga ko loué ni. nee ci portable yi rek yooyu ñu lay wax loolu rek. koo xamante ni tey kii nga nu mu tuddati. télé nga télé nan lay commandé si la sapé alors que yow boo gëmoon sa gëm ni nga mel ak li nga yor. mun ngaa mun ngaa commandé ay nit. waay Malaw Malaw sa diggante ak Mbaye Jom lan la da ngeen am problème. waaye dama am problème ak ci waa nga wax maanaam dama nekk koo xam ne damaa mën a défendre sama ma problème ak kenn mais maanaam dama nekk koo xam ne damaa gëm sama bopp. kër waa li teg yow ma mën a dem boo ko compter matul sama gaañ la waa sama grand frère la yaa ngi mu wëraloon sama sama tur àdduna foo xamante ni tey man demaguma fa kooku ak ay milliards ak ay visa États-Unis su ma ko bàyyi dem keneen naa ay tentation ay woote kaay dañ lay yóbbu fii man ay visa jiitaluma ay ba ay ay tukki jiitaluma parce que damaa gëm sama te xam ni man mun naa yóbbu sama bopp ne moo tax pour ñi nga xamante dañ may jéem a corrompre di jàpp ni man ay visa ay dem France wala ay dem non parce que dañ lay woo di la di la proposé a affaires yoo xamante ne nii jàpp ne da ngaa gëm ay tukki man lu may dee man moo da ngaa déggoo ma la. ba da ngay waaj a dem te war naa ñu ne da ngay waaj a dem. papier ne ah. moo yow man déggoo ma la ci tuutalu ma. waaye man digg tuuteelu ma dama nekkoon Maroc di liggéey naroon dugg ci gaal yi sama papa ne ma bul dugg mos a dugg ci gaal say morom fi ñu jaar da nga ko fa jaar moo tax pour gars yi nañ noppal rek te xam ne man sama apport médiatique bi ci wàllu son bi ci musique c'est pour Wally Seck naam nag képp ku am ak artiste bu am ak Wally jàmm dina am ak yow jàmm waaw kontaan naa ku ci mel ni ay ñoom ay ay ñoom ay Momo manam atis bo xamanteni ni yow jëmoo ngat wal jëmoo ko gerte dal man mala wala gerte mu la tar bis kontaan am leen japp li muy wane na xam nga limi woné bari na xam nga li may wax saa ne li initiative bu baax la xam nga ndax li dafa rafet. xam nga Pikine moom a ah, li may wax saa su ne ñun bu ñu boolewee ñoo mën ñëpp barke maam Seera Fall donc li initiative bu baax la xam nga boo ñaa dafay ñëw Ama Baldé ñëw Sokh ñëw mbër yëpp ñëw xam nga du def benn benn benn bloc xam nga lépp lu ñu song dañ koy daan incha allah waaw. combat bi moo tax ngeen booloo wala. non non non non non xam nga Pikine booloo yàgg na fi te li may wax saa su ne moo ci nekk Pikine dafa nekk dëkk boo xam ne du 100 pour cent nga xam ne ñoo dëkk Pikine yaroo ñoom ñoo yàq Pikine déedéet Pikine tey ñi ko yàq mooy ñi nga xam ne ñoo ci wàll ñoo fi wàllu yàlla si yaa ngi comprendre parce que ñoom xamuñu li xew est-ce que yaa ngi comprendre tey da ngay dégg benn benn benn nit topp naan Pikine lii Pikine laa waru ci Pikine tur la ciy wut la succès noonu la demee mais Pikine ñi nga xam ne traité Pikine wala ñi ngi supporté couleur drapeau bi ñooñu kenn mënu leen a jaxase tey boo xoolee gars yi amuñu problème Ama Baldé muy Boy Niang muy Eumeu Sène sox ku ci nekk amoon ak sa problème yaa ñi nga xam ne tey ñoo ci wàllu yan rek ñoom ñoo yàq loolu la demee waaw relation Samba Diarra ak artiste bi ni lan la waaw waaw jàmm jàmm ak salaam xam nga ndax ndax damay euh, wax saa su ma ci nekk nekk na loo xam ne du jeex xam nga tey suñuy papa ñoo fi nekkoon bu subaa ñun dañuy dem suñuy doom ñooy ñëw donc lépp rek dañ koy rafetal te ni amul lenn luy continuer ci àdduna donc yal na defal jàmm lafal nu cat ñun sam man Samba Diarra laa wax man ak artistes yëpp jàmm lañu ñu seek benn bloc la waaw noonu la demee ana waa waaw waaw eh, waa Ginaaw Rail xanaa ne wuñu fi ana ah. ana waa bi ana waa Cité Police ndax nag euh, ko te te te te boo liggéeyee donc jàpp sa ñaamur yàlla dafay ñëw parce yàlla bu may maa ko ma moom may yuusu te ñun war na noo may donc te lépp nag secret bi du dara dul liggéey suñu borom boole ñoom ay nit yoo xam ni lépp xam nga loolu nag soppe yi la am na jàmm ndax tey yàlla mooy dogal nit gis nit bëggal ko boppam xam nga gars yi ñu bëggal seen bopp lépp lu ñu def mu neex leen la demee waaw yàlla na yàlla defal jàmm yàlla nu bàyyi suñu biti coow li lu mu bari bari kenn du ko dégg ci dara Ama Baldé booy ñaar ñoo bokk ndey ak baay waaw parce que parce que ñun doxuñu ci ay buzz parce que buzz Ama Baldé ñoo bokk ndey ak baay maanaam ñun préféré wul nit ñi parce que TikTok ku ne xam na ne buzz nag moom fii Sénégal lu ne am dara beesul donc kenn mënatul kenn waratul am fii donc li ëpp solo mooy nit nga am fulla am fayda respecté sa bopp di wax liñ la wax loo du liñ la wax du def loo yaa loolu moo solo ne ah loolu moo gën a ay coono amul waaw ñu ngi préparé ay live la la pour suñu soppeeku suñu fan si ñu waajal nag ay tur incha allah xam nga ci maaw xam nga ak loolu la demee maa gën a bëgg jërëjëf may sant bu baax a baax borom Daaru Salaam ak Gaar maa ngi sant sëñ Sidi Mbacke borom Jàmbur maa ngi sant bu baax a baax bu ñu waa Pikine yëpp ku leen mayal jiw ñu ñuy ñëpp maa ngi may mafia bi yëpp maa ngi sama xarit nag ñu sama xarit boo xam ne dafa sonn si man maa ngi koy nuyu bu baax mooy dëkk bu Géejawaay ñëw fi muy Omar Dara maa ngi koy nuyu bu baax a baax maa ngi nuyu waa Tëngéej bu baax a baax mafia Pamaya bi maa ngi Tëngéej mafia Jokalante maa ngi nuyu waa Alioune Diouf nuyu bu baax a baax te nuyu waa Pikine moom Baye Fall fépp laa koy supporter mais ñii ñii ku ma bëgg ñu bàyyi ak ñii ku ma bëgg dama bàyyi ak ñii ñii yéen samay kilifa soo demee ak sax dañu war taxaw ma taxaw dañu war taxaw ma dem man ñu jaay neex man neexuma sama dama defu Baye Fall laa bu soo yokkee bu si kenn dama jox nit kër wax ma sa wàccuwaay ay waxi cinq cent pièces bii mais dinañ ñaanal nga jël bii mais nag ma fi la raw yàlla dama ko seen dugal incha allah incha allah

invitation yi. lamb ji lamb lamb dafa nekkaat dañu mayante xaalis. cent millions dañu mayante xaalis. esprit la. bis daaw dafa ñaanal rek ñu dugg fu mu war a dugg. waa jàmm nga def ko tënk incha allah. ñu bañ leen def dina xeex ñu bëri. incha allah am na yàlla fa yor. ndax yàlla fa yor dañuy nag. loolu ñu ngi rek laa ñëw. ñu ngi rek laa ñëw. xaw ma yàlla baax na loolu mën a sama yeewu si waaw waaw xam nga ma dégg xale bu ndaw sax bëgg na nga daaw xale bu ndaw sax bëgg na tuus nga jël góor góor la di ñaan daal yàlla si yàlla yóbbu jàpp seytaane ndam na yàlla yóbbu ci seen jàpp salaam toog Sëriñ Tuuba waa Pikine jël sanc ba rafet seen rafet bu leen xeex bu leen xuloo toog esat toog di faale seen kër ndax wax suñu wax ñu ne waa Pikine waa Pikine waa Pikine te Pikine jamono bii nii yéen a Sëriñ Tuuba Sëriñ Tuuba daal di mën a ñu fi nekk yëpp ku nekk daal di xam nañ ko troisième défense Ameka donc Pikine maa ngi rendre hommage commune de Sourah Ameka ñu ngi ko ñëw. groupe Pikine yaa ngi noonu de jàmm rek. mais xam naa balaa ñu lay bàyyi ñu dem ci Eumeu Sène dañ lay préparer combat nga gis Eumeu Sène sa mag gis Boy Niang sa mag gis Doudou Sané sa ginnaaw loolu lan la lay def loolu. souvent sax ñun ñëpp ñoo bokk ñun ñëpp ñoo bokk mais yàlla baax na dañuy sama mag sama bàlle bu baax a baax a baax a baax waaw ak sama ak pour saare maa ngi koy nuyu bu baax a baax ñun ñëpp ñoom ñëpp maa ngi nuyu ñëpp daal ku nekk nañu daal man gars yi daal daal amoo seen fay gars yi moom daal dañ ciy yàlla dañ ciy bàyyi yàlla waaw amoo seen fay quoi incha allah si bële sama yaay si bële maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax dañuy jàpp si kontaan yi dañuy kontaan yooyu sama nijaay si Dodo maa ngi koy nuyu bu baax sama nijaay Fane amu feer sama nijaay Awa amu feer Dodo Bade amu feer maa ngi nuyu ñëpp daal di nuyu maa ngi séeraas bu baax a baax a baax a baax a baax a baax Ousmane Sy Jafiner ñu ne leen fi gis nii xam nga yaa ngi nuyu xam nga déggoo yi suute boo ko seetaanee daay daay Ousmane bi ñu doon ay peer ak ñu tiit ak ñu ay xarala day rek day topp waaw nag boo nag lañ bëgg ñu am ay boobu bi ci stade bi toujours nag dimbali te yàlla képp tax te yàlla képp tax di jëm Sëriñ Tuubaa loolu kese rek dañ ciy ñaan bu baax te suñu daaw maa ngi nuyu nag seen bala si ñor yàlla ko yàlla xare àjjana papa yàlla bu tukkee yàlla ko yàlla xare àjjana maa ngi nuyu nag waa Grand Yoff waa ne loolu bis bi bu baax a baax maa ngi nuyu ñëpp Dakar incha allah gaa yi ñu ngi leen di a baax la siyaar Fapal maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar ñaari question laa am pour yow bi ci njëkk dañoo remarqué sa début carrière nga amoon ci trois kawoo loolu mooy mala bu mu daal loolu am si te mu mu daal mais dañu lool neexatoo foog laa ne ak question bi trop trop trop moo mën a changement mooy ci diggante chaque jour yéen ay doomu daara loolu yéen gars yéen a ngi dund ay mante lañ sax ay jàpp ay dóor loolu moom moom saa yàlla la si yàlla la jógee mais ñun waaw lu ñu war a def nañ ko def ñun bëri la ñuy def ñun bëri la ñuy xeex incha allah moom dina ñaanal jàmm rek ñu dee si jàmm amul lenn lu ma koy wax dina ñaanal jàmm di sëy sëkk sëkk ak barke gis jaaxal loolu laa koy ñaanal ba arbitre bi suuf la mën ak moom kase ak ak ak arbitre bi ak yàlla saa borom kase beneen question bi mooy xale bi ngay bëre kenn ku nekk xam na ne dafa mën a bëre day bëre ci ay tànk di bëre ci ay loxo te combat yi nga xamante ni jublu ci favori da cee génn tey jël nga combat bi ñu ne Pokola mooy favori est-ce que loolu diisul ci yow ci diis yàggu bi nga xamante ni fonk na bis bi ba génn réew mi am fu mu dem. loolu waaw c'est normal moom la ñu war a def favori mais man fekkee risque man maa gën a nekk si risque. duñ taxawal maanaam xeebu ma ko du dara de dañuy kanam rek di wax ne lu ma def si làmb def ko si làmb wala risque bi gën a nekk foofu abis suufé wala loolu war a bëree sama ëmb indi ma de bi la conseil laay bëree bu ñu la taxawal ma taxaw bu nee ma demal ma dem loolu kese laa moom xam nga bu baax a baax ma ne moom xamante ne mel waranta si àdduna ay paa lu laa bëree ay franc jàpp ne mën a yoon jàpp ne lu mel yoon ñun boobu bu ma tax a bëri mais taw yàlla ko yor yàlla jàmm may ndam tey mënul nekk sax mënul nekk bu ma tax a bëri ñu la ko sax bu ñu defoon moom moom contact benn ma ci benn benn tàngal du ma ci benn bokkul brasse yi bokkul gis-gis yi bokkul man jàmm laa juddoo fa lañ ma tegalaare Ibrahima Guissé xam nga li may wax. war na si leen si combat bi incha allah war si leen si combat bi. attan sama combat yomb na mais attan sama ngoon te jafe. jël sama combat yomb na mais attan sama ngoon moo jafe. nag dafa ne Pikine bi lañuy jéem a. yàlla suñu garaaw moom yàlla ko yàlla fay xolam moom xolam rek bu ko yàlla fay xolam rek day amul ëpp làmb ak kii tamit yàlla ko yàlla fay xolam. Pikine waaye ñu yow xam ne suñu biir ñun ñoo xamante suñu biir am na loo xam ne bii ñu dépassé si biir ay wax su ma yee fii yëpp dem kër kii dem kër Ama dem kër Amacem wax dem kii wax dañ bàyyi ñu loolu loolu bàyyi ñu loolu bàyyi ñu لا اله الا الله محمد رسول الله كل من يطبخ تكلمة ما يمشي فرنسا بريس طابي صاحب ملك بادر ملك امراس لان كما خلوا يدرس تكلمة فما جمع سنة التكفيري ان يمسكوا اكثر دمو يقول ربنا خاف هو الكريم هو يعطي هو يعطي loolu la quoi parce que maam Seydou Fall voilà di woo ñëpp di woo ñëpp di woo ñëpp nag di woo waa FMS bi yëpp waa Tigib bi yëpp di woo waa Guédiawaye bi yëpp maa ngi leen woo. di woo ñëpp man dama mën a échange fu nekk yàlla na ko defal dara nag mais teewul nag fu mu mën di dem nag drapeau laa yëg. Massi bàyyi nga bàyyi Massi su ma defoon Guédiawaye moo faale Tigib wallahi Asile yàlla moo ma tiim mais fii laa dëkk fii laa juddoo loolu kese la bisimilah. jërëjëf kooku mooy Pogola Baldé waaye nag kii balaa ñuy jëm ci Eumeu Sène le fils de Balla mi ngi nii toog muy Boy Niang numéro 2 kon dafay jox Babacar Thior Dakaractu bu ko defee nga dugal ki nga xamante ni moom mooy waaye lépp li mu liggéey jërëjëf. Assane. jërëjëf jërëjëf. nee na nga taxawee baaxul. di nuyu waa Pikine yëpp ah surtout di lancé crédit bi mi nga xam ne tey moom mooy seen mag booy ñaan di ko nuyu di nuyu Pokola di nuyu tamit Pape Sarr mais yaakaar ne tey booy ñaan bi ñu dugal ñu dugal rek mooy tey li am parce que li yaakaar naa ñun dëkk ñu Pikine

balaa ngay ñëw wala ba nga ñëw ba dem nga seen ñëw wala ngeen dajee ndaw fa ren ma gisaat keroog am saat bu ne ama ma gisaat nga defaat lu mel noonu ñu ne ama moo la woo wala yaay boobu la nga soxla sa kàmm mu mel ni doonte ay wax ak am jàppal baay nit ñi daal mel ni li ngeen di dugg seen biir réalité la maanaam yéen sori wala boobu ñu xamul ñoo xam tey image bii loolu ci wax waa bi nii booy ñan ak nu ngeen koy waajee pour dimanche parce que ngeen di xaar bëri mercredi ginnaaw suba la premier Ndiaga Thiam day ñëw te Pikine la dëkk ñun dégg waay am maag Pokola fekk ba bokk benn takkusaan te démb pour Sané wala boog démb ngeen am deux ci waa parcelle démb dee ngeen am ngeen laajte pour Sané daan Garga deux sa kopp daan ki nga xam ne ni moom mooy Albouri waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu Pikinois yi ñëpp nekk yëpp te bu ñu presse bu baax a baax di leen jox seen kër ak seen wàccuwaay di leen masawu coono yaa ngi ngeen bi liggéey bi yombal di leen masawu coono bu baax a baax. di nuyu Eumeu Sène suñu grand frère bu mag di ko ziar bu a baax di ko ñaanal a di nuyu Pokola di nuyu mbir yi fi teew yëpp ay teewul comme ni ko waxee sànq dafa am koo xamante ko di la war a demee ma ne ko a a mooy yoon léegi loolu def loolu lii dañ koy yàq dañu yàqal waa Pikine dañu yàqal suñu bopp ñu la war a demee dañu war a bokk ndey bokk baay ku ne li nga am yàlla moo la ko may mënu ma lekk sama bët lekk bu ko mën a loolu mënut a nekk dañ jox ku nekk moom ñu bokk ndey bokk baay ñu jàpp mu dëgër kenn am na seen mbir biir boo xam ne tey boole dama ko wax ak moom ma ne ko lu ñu xaar kenn du jóge fee di ñëw ñu defaral Pikine ñu ne ay magum jëmm la ku nekk yaa ngi sa kër yaa ngi say doom yaa ngi njaboot bi ginnaaw ñu ñoo ko defaral suñu bopp ñu kaay kenn du ko defaral te loolu mooy loolu ñu wax Pikine laa yëpp ñu jàppale si boo xoolee ñu ko organisé fan club Boy Niang la fan club Ama fan club Eumeu Sène ñu ko organisé maa leen ñu ma taw cox ñu lépp donc loolu moo rafet am na boo gisee rafet da koy joxal loxo te Eumeu Sène amul waa wax rek da lay sama mag di ñëpp ñu ngi sa ginnaaw comme ni ma ñu kenn mënu la conseillé ku la conseillé ci ñun dafa sof rek yaa ngi gën a mën jëf yaa ngi ko dàq yaa ngi ci lépp fuuf yàlla yàlla may ndam bu set góor incha allah Pokola tamit Pokola tamit maa ngi lay ñaanal yàlla may leen ndam gantal booy nga maa ngi félicité Sokone Baldé démb waaw Sago Balde isso ngi koy félicité bu você a baax ci làmb bi démb wax ni Sago kontaan nañu bu baax a baax maa ngi koy félicité Doudou Sane aussi maa você koy félicité léegi maa ngi yor gis nañu léegi man la léegi biir nga toog xamal loolu donc biir nga ñu lay ñaanal ndam ci bu baax a baax a baax. man la lépp balaa bi ma laajee. waaw você ngi lay bu baax a baax waaye ñu ngi lay bu baax a baax léegi você daal la ñu ñu ngi gërëm bu baax a baax di leen taxawaay bi ñu ngi leen di béy na yéen ñëpp yéen taxaw fii Dakar béy na pas de bande suñu mag journal bi ñëpp béy na yéen taxaw mu naaj te ñu leen wax ñu teg seen tànk foofu parce que bu ñu nekkee rek bu demee rek bu demee daal dañu naan daal di mucc mais mu xool ku nekk xool mu mucc mu xool daal di naan mooy bii mu bii mu mucc dafa am daal loolu moo neex loolu mooy dëgg bu ñu defalul loolu yàq nañ ko maa ngi leen grand appel képp koo xamante ne ba fii dëgg fii nga jàppale daal fii loolu mu seet la maa ngi ñaan Ibrahima Diop mu jàpp ci Thierno Ndom Ba maa wax mu jàpp ci Abdoulaye Timbo Zubra Ibrahima Diop bàyyiwuñu kenn Modou Gueye waaye si biir bàyyiwuñu kenn ñu wax ñëpp ñu jàppale gars yi ci biir yi ñu fiye stade bi ba mu fees ñu ñaan yàlla suñu doom moom ñu doon dem mu may ñu ndam incha allah maa ngi sant ñëpp di doon yëpp am na yeneen combat yi fii kanam mu dal suñu frère Ama Baldé ñu ngi ñaan mu ñëw jàmm bu ñëwee yàlla may ko ndam voilà ñu ngi taxaw yàlla may yàlla may dem seen buy ñu bëri nag ñëpp nañ taxawaat loolu kon Amadou bu ñu paree keneen keneen loolu ñu ngi teg tànn xam ne affaire yi kenn duñ ko defal ñu yokk defal suñu bopp maa ngi léegi nag mbokk yi ñu jëm ci benn bi nag am na seen mu ngi nii toog waaye la ñu ci biir ñu ngi toog moom tamit ñu ngi toog sama loxo yi doo tege fii waaw daal ñu ngi Dakar pour ñu ngi toog ñun ñëpp dañu leen jox kàddu nga posé question am na seen question bi nga xamante ni moom bëgg bëgg posé ci diggante mag Sa Thiès Sa Thiès xale la waaye màgg na ëmb am na seen Sa Thiès ku ko xam xam nga dafa mën bëri ak luur ba ci nekk bi ñu bëri ku nekk bi ku ne gis nga façon bi mu bëri ñu bëri ne ñu bëri ne euh, Eumeu Sène na xeex ak Sa Thiès parce saa boo yëkkatee laaw rek Sa Thiès à mën na la bëtt tuuti ñooñu lan nga leen di wax d'abord balaa ma asalaamaaleykum ñu ngi leen di leen sant di sant yàlla bu baax di ci ñoom suñu tëb sallallahu alayhi wa sallam di jël suñu ñaari waa ji yu mag di ñaanal Sénégal bi am na fi jàmm yàlla waaw wax na waa kenn du dem nag géej boo say waa nañ jàpp ne ko préparé attaque deux cent ji dinañ ko dinañ ko wane je kenn dem géej du wax arme yi Sadam ñu doon maa ngi am na seen i sa pare ñu jox la ni ñu ci sunu lan pare ñu jox Babacar am ñu jox sunu mag bi ñu ñoom ñu ngi assistance bi bu ñuy presse bi ndax bu ñu yëpp presse bi la mel bi jaar na yoon te lii moom la ñu soxla may rafetlu nag li nga xam ne moom la soxla ci tey tey bu ma dégg bu góor bi am na ko rafet dama am nga rafetlu ko waaye nit ñi war a am tamit ànd ci yàlla kon nit ñi wax lu ñaaw ñu bàyyi loolu te xam ne am na seen yëpp gis boo xam ne nag léegi laa jaaxal ndax wax naa la sànq maa ngi leen di leen di leen sant di leen sant di sant yow bu ñu la jeexal ci da ngaa def tax da ngay jeex te da nga bëggee da ngay jeex yaa ngi def ba jeex. waaye da nga nekk xale boo xam ni jàpp na lu taxaw ci kanamam mooy la xam te ñu doon def la nga doon def si leen sant yow bu ma ci wàññi jël ama seen arbitre wàcc na loxo moo teemoon kenn ci kaw ama seen ama seen maa ngi ñaari question benn bi ndax bu ñu Eumeu Sène barab Sa Thiès ndax Eumeu Sène mën na koy dóor waaw soo tegu doole la. waaw loolu ci góob mooy bii moo gën a gis dañuy fàtte loolu daa koy indi daal yàlla baax na ci biir yëpp yow. beneen bi des na ñu gis bi ñu gën a àndandoo loolu ñaaw la Eumeu Sène ndax mu def bu ci yow nga war a bëri jox sa rakk xamal ni bis balaa ko waaye daf ñu ko gis yow xale yëpp xam na di am seen yow la muy projet bi di jël jël boo ko jox say rak ndax ku nga xam ne boo ñaay xaar ama ba ñaay xaar te yaa waroon dugg dugg jàmbaar loolu tàmm naa ko nekk na lu ma tàmm kon moom personne zéro personne incha allah ci kàttan bi yàlla ñu war a yëkkati incha allah daa am ci yaakaar bu baax yàlla na am na nag yàlla naa si borom bi tam mais loolu du gaaw a masal mais mais étape étape physique étape physique bi nga xamante ni moom la Sa Thiès si yoon ci mbiru gaaw rapidité bi nekk ci moom est ce que Eumeu Sène bi di calculer loolu Eumeu bi nga xamante ne nga xam ni combat capital gaaw parce que expérience face à la jeunesse lii nga ne Eumeu Sène expérience face waaye Sa Thiès doole ak sañ-sañ bi mu ak mën a non non loolu amul problème de la su tëddee nañu nelaw waaw yaakaar naa recette yàggutul yàlla yàlla si borom may daw mais amuñu même le gan la kon ñu jox euh, Lamine Kane Lamine Kane. Ibou Kane nee na baax na. kon euh, Ibou Kane boobu Ibou Kane. nee na baax na. Amou Sefa boo paree nga def Modou Anta Modou Anta après nga def Babacar. non naaj naaj naaj naaj. alhamdulilah ñu ngi si kàlla gi. jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu Awa maa ngi leen di nuyu di leen ziar. boo ñibbee na leen protéger. mais li ñu bëri gis naa fa benn photo boo xam ne am na lan nga ko bëgg a wooyee lan moo xew da nga gis ne xale bi am na lu mu lay daane wala am na noo koy daane mën ngaa xam mën ngaa génn si làmb moo tax ñu gën a andiwaat beneen état de forme boo xamante ne nii dinaa ko gis ne dinañ lay dund travail boobu lan nga bëgg a gis. waaw parce que bi ñu ko soxla rek combat bi ñëwaat di toog ma xam ni. du su may yëf lu dul Pikine lu may wax rek ñu mën def pour Pikine gën a dëgër parce que dinañ bëri ba pare aareel dégg sàmmoon dafa dégg wàllu site lépp Pikine dañ ko àndal tey zéro lañ commencé ba noonu ñu doon kon combat bi dafay combat bi ñu doon ñu liggéey ci ba coriace liggéey ci bu baax liggéey ci opération def ci wàllu lépp laaj si mbor na moo yor ndam ndam yëpp yàlla suñu borom yëpp yàlla suñu borom ndam lii nañ daal loo xam ne xañ daal macha allah adversaire bi nga am man avancé bi xaaral si guddi bi nga am parce que nit mu bëri parce que yëpp ci seen droit muy adversaire boo xam bu jëntee bëri di saa Thiès bu jëntee bëri boo jàppee tànk bu mu bëri boo jàppee nit mu bëri adversaire boobu est-ce que mën nga wax waa làmbul parce que ak adversaire am la ak yu mbërëm ak sans dépense combattant yi ñoo ko jël loolu si làmb bu dul la mais xool adversaire waaw loolu c'est important waaw nee nañu nit kenn da ngay bañal mañinam wala champion loolu champion la nangoo ñu ko waaye nag li ma la mën a xamal mooy làmb bu dul la waaw wax dëgg yàlla ok beneen question bi comme bëri nañ ci tey dama gis ne dafa am loo xam dañ ko seetlu ci làmb man nag dégg naa li sens contraire ñu daan mag daan mag am na ci Papa alam daal am na ci sopp kenn am na ci Siteu de Saloum de am na ci yeneen yu ma mën a wax dañu waa jéy waa dañu taxaw ne bu ñu daan di ay bopp Eumeu Sène nii am na ci Boy Niang ak Sa am na ci Boy Niang ak te ñoom déjà dañu taxaw ne mbirum jàng bi day taw comme que seen ñu ngi leen di leen naqari ñu ne ndax xale bu màgg na ku mel ni ñoom daal day fexe loo mën leen daal suñu université bi. waaw ñu ngi ñëw ñu ngi daal bu baax lamb la nag quoi lamb la bon ñun jëmuñu tamit ci suñu réew nga xam nga nekk di ñoom lii la war a def en tout cas daal ndam li ñor nañu trop trop trop te incha allah rabbi ñu koy ñaanal si moom daal mais li passé man gisatuma loolu waaw Sa Thiès te am na ci kaw tey yéen ñaar ñu toog même bu dul Pikine est-ce que waxtaan ngeen ci combat bi yéen ñaar. waaw loolu moom dañ ciy sant yàlla bu baax parce que waru waaw toogaay bi lii rek moo war parce naa la ci nekk bopp la kenn mënta xam ñaar tey ni ñu dajaloo nekk benn mooy suñu force dajaloo mooy suñu force man ci man tey bu loko ci def benn benn moo ko ndam mais buñ bañ boolee bay ba mu jox la da ngay def lu yem rek mais du ko ndam kon mbooloo mooy doole ñu ngi ciy sant ñi nga xamante ne si ñoo am initiative bi bon ku demee ni fan si kër Ama fan si kër Boy Niang fan si kër Eumeu Sène suñu mag itam ñu dugg nañu Landiol Pape Sarr Pathé Baldé surtout Pathé Baldé moom mention spéciale la ah. voilà tey fii ñëpp booloo nañu te booloo moo doon man ñu rek laa mën boo sumay rakk jiital rek laa mën voilà kon nag bon yàlla yàlla wusal si daane yàlla na aussi ba jigéen doole jigéen benn bopp rek dama ko xaar ñaar bu leen gis ñoo bokk ndey baay kon képp fi nekk rek wala képp ku nekk mbër fu mu nekk rek maa ngi lay ñaanal yàlla suñu borom li nga bëgg ci làmb yàlla defal la ko parce que làmb dafa nekk sport boo xam loo boole rek mu bàyyi la moom te bis boo ci essayé rek day fekk gàllankoor te képp ku ma nekk ba ci yaaw daal maa ngi koy maa ngi koy jërëjëf Amam dana question rek xam naa ne temps bi xoj na leen bàyyi leen ngeen dem ren dañoo gis saison bi nga xamante ne mooy saison bu am solo bi nga xamante ne Pikine perte na ko ci ay combat ngeen am ki nga xamante ne mooy Sa Thiès gis Pikine daw seen biir ñu bëri ñoo xam ne Pikine dañu amoon ay réeroo ànduñu woon ngeen am ki nga xamante ne mooy Sa Thiès gis suñu ko làmb ji Pikine def nañu fixation bu am solo combat bi yéen doy wala adversaire bi moom moo leen jaaxal ba mu waral ñu woote seen biir pour dajaloo pour defarwaat pour jëmmal bés boobu noonu non man dama seetaan bi émission moo gis ay bare bare kii waa kii waa ay mooy su àll mais koro yàlla xam ne ba ma xool émission bi nelawoo ma parce que dama xam ne am nañ naqar am nañ lépp lu waaye xam ne ñii ay cent pour cent Pikine waa lañ waaw trois personnes lañ mais bañ taxaw wax keroog mais nag bu gars yi bëggee tas ñun pour que consulter mun a rëggee duñ ko nangu du dëgg voilà loolu la tout juste rek combat bi combat bi ba ñu naan combat bi mais dafa toll juste rek pour ñu nekk ci ay quelques tolof tolof ndam li ñu soxla ko bu taat am leen lu mooy la bëgg ñu booloo xam nga boole doole bi yëpp pas combat bi kese kooku laa ñu koy ñaan yàlla dafa mu ndam waaw Jacob ñu ngi lay félicité bu baax ah waaw gars yi kontaan nañu trop bëgg ngeen sant bu baax. ok di encouragé tamit aussi li nga Alboury Alboury champion la waaw ba pare démb gis naa Alboury def fair play bu nice ma koy wax ne ko défi bi yàlla nekk sangal ci moom ok mu continué kër yi mu ko bëggee beneen mooy Doudou Sané Doudou Sané gars yi kontaan nañu trop trop trop trop ñu ngi waaw foog naa waaw Mbaye Thiam suñu rakk ñu koy ñaanal combat bi ñëw yàlla may ko ñëw moom sëñ bi mu dem ci combat bi suñu Tyson dootal nañ ko bu waajalan bu baax dëkk tam yow champion la ñu ko defaru bu baax làmb noonu la làmb moom soo ay tey bu neex soo mu naxari bàyyi ba sa ginnaaw bu ñu àndalee man la sama poste ma sàcc dégg waaw man man lay ziar kenn yaraw ma sàcc ah di la ñaanal jàmm man moom lay laaj kër ci yow laa déggee ak moom mooy kan yi xam ne sàcc liggéey dañuy liggéey sàcc wala sama poste ma ko tey nga jàpp ne yow fi nga toll ay sàcc la nga toll waaw bon pour la amee moo tax nga wax loolu wala da ngaa téye ba mu leer na yow saa ci suñu kii fii kii naan dafa la gën a jënd xale mu la war a bu doole loolu ñu yaakaar moo fa nekk. loolu ñu xaalis bër kenn. Soxna Sadio taxaw fii rawal Soxna Sadio ma taxaw fii. su presse laa ko gën dégg. lan la ñu mën a. yaakaar ne musculation rek laa xam combat bi lu ma liggéey si biir loolu musculation parce que musculation maximum deux trois fois par semaine mais nag ñu ngi maa ngi nuyu aussi sama coach Mohamed Ndiaye waaw Mohamed maa ngi nuyu baax moom mi xam ne dafa nekk combat bi Diallo moom moo formé maa ngi nuyu aussi Diallo bu baax mbooloo tamit ñu ngi fekk si def espoir di saa yu bëri maa ngi doon nuyu baax moom la waa boxe ak laay waaw maa ngi tamit aussi ñu koy gërëm moom moo yoroo dèjà fii ñu nekk ci stade bi moom moo yoroo boxe AS Pikine kaay bi mooy équipe nationale boxe waaw ñu ngi leen di nuyu baax di sama kër si yëpp jiwoo tamit ñu koy nuyu baax mais nag combat bi lii la ci war a jiwoo baax. Sa Thiès moom la ëpp doole yow. yàlla baax na la sëñ soreetul ah ma la sëñ waaw soreetul ñu ngi am yàlla suñu borom ñu ngi am mais juste ñu ngi comprendre incha allah parce que dama ko dégg moom Sa Thiès bi ñu koy jël mu ne du muy bëreeg Reug nit ñi waxoon nañ ne Reug daa mën a bëree mburu moom daa jàpp ne moom du laa nekk athlète te waaye man daje naa combattant bu nekk daje naa champion naa ñoo xam ne affaire bi cinquante kilos wala trente kilos boo mën jëlee kenn ko métti ci làmb bi gënu ko tànn plus de cent ñaata kilos da ngay attaqué sans contrôle dañ koy ñëw ñu mu tar liggéey naa man nag wax mu réew ma ko quoi maa ngi def rek mu may ay bëgg lañ lañ moom xam naa mu ngi dépression mais lañ nag may ma biir may ma biir s'il vous plaît parce que léegi dama laaj Habib Ndiaye laaj kaay surtout Habib Ndiaye Habib Ndiaye moom danaa ko saa jees mooy mu am vitesse te xale la te day ñëw ku mu dajeel ci sa kaw la jëm si Habib ne ma su ñëwee combat bi du yàgg bu yeboon nit ñi jóg te dem te ñu ngi koy xaar ci ñoom. bi ci des mu ne li ko sànni def démb pour mu daanu mu ne dimanche Eumeu Sène day def lu a lool Habib Ndiaye moo wax loolu xaw ma nag fan la ko teg waaw nañ ko nangul lu mu wax parce que moo tamit gëstu na suma saal ñoo àndandoo mbapat Habib Ndiaye nekk na suma laaxam dund waaye ñoo ko buñ koy yaayam suma bàggeel la suma tàndoor bu dee kon Habib salafan

bëgg naa posé question mais ci biir wax ci laa amee question parce que Babacar dafa ci xeex bi nga tudd ba bu soree gaari xeex da nga naan boxeur la ci àdduna bi xeex bi bu taxawee xeex rek ci ci ci ring da nga moo dàq xeex mais bu si biir Eumeu Sène bi organisé ma xeex bu jàmbaar ay laaw est-ce mën nañ xaar le cinq Eumeu Sène loolu war lu ëpp parce que gis nañ sa combat ak Tapha Tine xeex bi xaw na gaaw yoon est-ce que mën nañ xaar seen seen benn ak Sa Thiès ñu xam ne seen wax vrai vrai vrai bagarre la parce que yow yaa ma waxoon ne nag xeex bi mu ñàkk ci combat waaw xam nga nit ñi moom dañ may jàng mais waruma tar si dugub si wala gars yi ci laab bi mën nañ ma jàng mais waruma tar xeex dañ ko doon sama papa loxo mu loolu keroog si li wax képp ku nekk si biir gerte gi doon a mën xeexu làmb dafa am tuuti différence bi jàmm parce que box bu ko tuur si nga fay gis ñu wet ay yëpp làmb boo ko defee boo xeexee ñaar loxo mën nañu song kon am maanaam calcul mais boxu kenn du la song mais boxu yi yi ci bëri bu ñu wënal suñu yoon bi ginnaaw xeex loolu deret la ci moom deret la si ñoom ñu suñu fan bu ñu sant ñoom nga xam ne mën a xeex li nga xam ne toujours waa ñu dem di toog ci parti génération Afrique ok kon nag bon lamb ji incha allah dañu xool naka la ñu war a mën a gën a mën a améliorer ak par rapport ak xam ci lamb bon su ko ñu xaar loolu amul problème mais des fois man su ma liggéey ci lamb waaw bon c' est vrai jàmbaar dañuy am benn ayib wala benn saytañ boo ñëwee boo xam ne waaw rage boo xam ne boo ko gënee sans nga koy am contrôle mais il est temps pour ñu xoolaat bu baax mais la sañ gis lan baax la moom la woon. fan ngay ragal saa gis àgg la fa ci biir bëre fan ngay ragal saa gis àgg la fa ci biir bëre. non ragalu ma dara jàmbaar ñu ko jot lakk dañ ko teg ñu ragalu ñu àgg la nag yéen yaa si borom léegi nag am nga xam naa ñu bàyyi la nga woote ñu bàyyi la nga woo supporters yi wax tamit ci wàllu mobilisation bi wax ak supporters yi naka la ñu ñëwee stade comme ni ko Koko Balde waxee. bi ci des ñu bàyyi la nga woo ñi nga woo ñi nga war a woo. waa di wax tamit foog naa dama gaa yi bàyyi xel bu baax champion la ñu ngi bay waar nañu nekk ci suuf wala ñu ci mel saaf la ko moom mu rafet may champion di ñëw mais ñu ngi xam ne bu baax a baax waaw maa ngi pour que xool ñu lu ma amoon lu ma ñaax waa Gambie nag tamit aussi maa ngi nuyu baax bañ jàppee ba tey bàyyi yàgg naa ñu nuyu sama mbokk Sow yi ñu nuyu sama mbokk Joolaay di woo tamit aussi Abdou Karim Sall kii sax sama combat la Isaaxa Isaaxa maasaw spécial Isaaxa Diop kuy sonn ci Pikine ne yàgg na bopp rek ci jàppee bàyyiwul Isaaxa moom mën naa Pikine waaye bàyyi xel baax loolu tamit aussi ñu nekk si combat bi di sonn pendant que ici le maire de la ville Abdoulaye Timbo Abdoulaye Timbo tamit son cerno tam tamit aussi kii surtout waa Pikine la mais Ibou Timbo tamit aussi Ibrahima Diop Ibrahima Diop moom Kader production waaw merci kooku mention spéciale parce que combat yi ñu ci def léppam ñu ngi nuyu tamit aussi Hadj Plaza bu baax muy koo xam ne kii soxna si Eumeu Sène la gën a jàpp si seen combat la. di ko ñaanal yàlla yàlla gën a ko yëngu parce que jàmbaar la wax dëgg yàlla suma suma xarit la suma gaay muy xam tra la bu baax ñu jàpp ci combat Abdou Karim Sall ñu ngi woowaat bu baax ci combat bi parce que vraiment nit ku sonn sumay combat la. jërëjëf ñu commencé aussi sama staff yëpp waaw sama rakk yëpp di mel ni Boy Diagne Pao Moussa Sow góor max tamit aussi max suma jantal la waaw max kii max gis naa sa taxawaay ci man waaw dañ ko lu ne dañ ko mel na ko sa ñu bu baax bon xam naa ne moom suñu lëkk la dañu ñëw gars yi incha allah dañuy joxe rendez-vous le 5 mais mais amul dégg communicateur yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax waa Ndariane maa ngi leen di nuyu bu baax donc boobu maa ngi nuyu bu baax. tant que production. voilà ndam rek.